Diène maa ngi lay euh, Diène lay nuyu di la sant la gërëm bu baax a baax Diène di la gërëm bu baax a baax waaye ñu ngi stadium bi di préparer drapeau de l'état tey mooy suñu huit jours yoo xam ne ñu ngi def groupement fii ak fii fii ci stadium bi waaw di di préparer drapeau de pour mën a préparer pour dem Diourbel. non wañ amoon na wañ amoon na fi euh, vraiment wañ amoon na fi waaye itam wañ bi garaawul noonu par rapport nu mu doon amee moom amoon noonu ren waaw wañ bi moom euh, am na. waaye nu mu doon amee daal amul noonu ren waaw vraiment lépp normal la tout li ma lay wax rek man sax tout li may wax mooy man duma gërëm ku ma defalul dara déedéet man du ma gërëm ku ma defalul dara man man man man noonu laa mel loo ma defal nag daal la gërëm waaye ku du gërëm ku ma defalul dara parce que dafa am loo xam ne lii dafa nekk loo xam ne nekkul aj ba boo ko moom nekkul tam président Mamour moo ko moom les régions de Kaolack ñoo ko moom mu nekk équipe régionale. bon nag ñëpp nga ci war a jàpp amul xele amul mag amul góor amul jigéen ñëpp ñu ci war a jàpp xam ne lii ñoom ñoo ko moom région de Kaolack ñoo ko parce que dañuy wax ne équipe régionale de Kaolack ñoom ñoo présenté région de Kaolack bon nag ñëpp ñoo ko moom waaye fu mu ne actuellement fu ñu toll nii bonne volonté kese ñoo ci jàppagum pour le moment bonne volonté mooy ma dinaa cité ay tur mooy euh, mooy ki wax ne papa kii fay Cheikh fay jàpp na ci Eh, kii eh, kii eh, Lamarana jàpp na ci ak Koso Koso Diané jàpp na ci man ñooñ laa gisagum ñoo xam ne ak xaar dégg naa xaar jàpp na ci ak kii Mohamed Mohamed Niang Mohamed Niang jàpp na ci waaye par ça amul kenn ku ci jàppagum ci autorité yi am benn autorité boo xam jàpp jógal ci loxoom bu dul bu dul Pape Demba Pape Demba bi tey mention spéciale Pape Demba bi tey parce que.

joli waaye dem nañu boo am nañu logement boo xam ne am nañ ko xale yi war a dal waaw vraiment logement bu baax a baax am nañ ko foofu waaw boo xam ne dem nañu boo gis ko ba vraiment xale yi foo lañu foo lañu dal ba soobee yàlla.